jërë ngeen jëf askan bi asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu bu baax kenn ku nekk si turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax si ànd bu rafet bi ngeen nekk di ànd ak ñun fii si biir QTV ak yéen ñi nga xam ne yéen nekk di ànd ñun si Q Radio muy téeméer ak ñett yu tomb ñett fii si biir tundi Kairaba Avenue ak yéen ñi nga xam ne léegi la seen ité ànd ak ñun si Facebook bi wala book sax mu nekk si YouTube bi ñu fas yéene tenk leen xibaar yi lënd ji ngeen di si ànd ak man mi di Biram S Diop lu gën a fës nag tey ji si biir xibaar yi joorin bu amee muy wàllum mbéy mi ak wàllum yarum gàtt gi ñu xamee ko si honorable Demba Sabali moom nag yëkkati woon a kàddu ne ko jëmale ko si gannaaw bi ne am na koppar bu dal di béy ko si African Development Bank pour nar ko war a mën a dugal nag si wàllum muy dund gi si 3.5 million dollars gannaaw bu loolu weesoo tamit léegi am na kàddu nga xam ne moo dal di béy si wàllum muy kaaraange ba loo taxoon na muy PRO bu Gambia Police Force ñu xamee ko si cadet ESP di Binta Ndiaye jata waxoon na nag kàddu na jëmale ko si yooyu fànn gannaaw bu la weesoo tamit ba léegi muy Gambia Red Cross Society ñoom nag ànd neen ak United Nations Volunteers pour seet ñoo war a mën a yëkkati wàllum dimbal nat ko war a mën a dimbale ñu yàqule woon si mbënd bu amoon ak si taw bu nekkoon fii si biir réewi Gambia kon askan bi yii nii ak yeneen xibaar incha allahu rabi si lu bañ ñu yàgg ñu indi leen si ay yaatal. gannaaw bu ñu njëkkoo yéen si bopp xibaar yi fu ñoo fas yéene ànd ak yéen mooy ajuma bi ni passé am na nag mu mbégte bu am solo bu nga xam ne am na fii si biir réew mi li ko waral nag muy jëriñ mu amee muy wàllum mbéy mi ak wàllum yarum gàtt gi moom la nga xamee si honorable Demba Sabali moom la ko yëkkatoon ab kàddu nag jëmale ko si gannaaw bu nga xamee si bopp nag ñëwoon nañ pu war a seet ñoo mën a dugalee nag ab koppar bu am solo wara bay ko ci African Development Bank manam mu nek bank nga xamne ci walum dépasse dañu baxol di dépasse bax ma ci walum natanga ci bép rew nga xamne moko ci bi rew ni ñu ñuli mu ci walum muy Africa li nak taxone ci bopone ci crédit bi su ñu yëkëti won koppar bu toll si ñetti million juróomi téeméeri junne koppar réewi Amérique pour nar ko war a mën a dépasse nag si wàllum dund gi ak ñoo war a mën a dimbale nag muy jafe-jafe bi nga xam ne taxoon na benn ñi nag mënuñu woon a am dund bu doy jamono si gannaaw pour nga gis ne ay jamono si kanam tam ñu gis ne da nga ko war a mën a ñëw pour war ko nekk di récupérer te li ñu ko su ko nekkoon si li nga xamee si Gambia Rice Value Chain Transformation Programme te nag mooy ni ñoo war a mun a seetee pour gis na muy walla muy béyum maalo bi ni ñu ko war a mun a yeesalaatee ak ni ñoo war a mun a yëkkatee muy bépp fànn bi war a mun a ñëw pour jàppale wàllum béyum maalo fii ne si biir réewi Gambia te nag loolu am na solo bu baax a baax pour nit ñi war ko mun a nekk di ko pugaroo si biir loolu nag ku ñu xamee si Rebecca Ama Daysi moom moo doon wax si tudde muy African Development Bank mu ne nag suñu sukkandiku contexte ab jamono si gannaaw muy 2022 muy ren jii dem si 2023 mu nekk déwén jàmm préparé dem pour war a mun a gis naka muy lépp lu ñoo dugal da nga ko dugal pour war a mun a ñëwaat nag pour yeesalaat nag yokku dooleel wàll muy amam bay malo fii si biir réewi Gambia te mun ne loolu nag yàgg nañ ko def te kon lii dafa nekk lu nga xam ne dañu rek pour delluwaat buum si booy booy wi te jafe-jafe bu nga xam ne que am na te lii yëpp dañoo gis ne suñ ko defee dina am yokkute bu ma war a mën a indil muy askani réewi Gambia mu ne kon nag African Development Bank yàgg nañuy dugal seen loxo si wàll muy dépasse pour dépasse yu war a indi muy bunti yokkute ak bunti natange ak bunti koom-koom te nag loolu am na solo bu baax a baax fii nii si biir réewi Gambia mu ne ñoom nag préparé nañ pour gis ne lépp li war a mun a ñëw pour yokk du ngeen a xamee si rice value chain transformation programme bi mu ñoo war a ñëwee pour gis ne lépp lu ñëw pour fasante ko si wàlla muy mbéy mala bi ñu dugg fa seen loxo ndeg loolu nekk nagutoo bu ñu amoon si diggante ñoom muy Africa Development Bank ak nguuru réewi Gambia si kare bés yi nag muy moom mii di joni mu amee muy wàllum mbay mi mu ne moom nag am na mbégte bu baax a baax nag si tuuri njiite réew mi di président Adama Barrow pour gis ne lii nag ñëw na pour nar a dimbal war nag askan mi nekk suñu bàyyi xel wàllum dund bi dafa xaw a sooxe lool lu ko waral nag mu nekk guerre bu nekk si diggante Russie ak Ukraine te nag loolu nag am na jafe-jafe yu nga xam ne si boppam indi na ko si wàllum muy dund gi rawatina sax mu nekk aju si wàllum muy maalo mu ne nag lii si nekk nag ñëw na pour ñu ko mën a daal di dina am solo lool ñu war ko mun a dugal bu baax a baax si wàllu muy am béyu maalo mi nga xam ne 2022 mu nekk ren ji nii 2023 maanaam nekk déwén ab jàmm ñu gis ne dinañ ko jéem a yëkkati pour mbéy maalo mu gën a dem comme ni ko nit ñi gën a nekk di ko puukaroo mu ne suñu bàyyi xel bu baax a baax nag ab jamono nag réewi Gambia si atum 2018 dépassé nañ lu war a toll si juróom-ñaari millions de dollars te ne nañ ko te nañ ko defoon na moo nekk African Development Bank maanaam mu nekk muy biir jëncee kay koppar. te mu nekkoon si que defoon nañ ko si 2018 maanaam mu nekk juróomi at si gannaaw ba léegi kon mu ngi mel ni comme ñëwaat neen pour nat ko war a mun a yësalaat te ngaa si muy beneen ñetti million juróomi téeméeri junni koppar réewi Amérique moom docteur Demba Sabale mu ne nag am na mbégte baax a baax nag pour gis ne que lii def nañ ko si turi muy réew mi ngir war a mun a dimbale képp ku nekk doomi réew mi ak képp ku nga xam ne si bopp ne fas na yéene pour gis ne dina war a dugal loxoom ne si wàllu muy béy malo te mu ne béy malo nag su nekk ñëw na ba àgg comme fu ñu ko dal di koy yaakaaree lu mu amee njëriñ nag moo ñu gis ne lépp lu nekk di aju si wàllu muy ama dund gi dafa fekk nag def nañ ko si ni mu gën a mun a nekk di yombee mu ne kon nag si turi njiit réew mi ak tam si turi képp ku nekk doomi réew mi mu ngeen ndokkale di jaajëfal muy African Development Bank moom docteur Demba Sabale mu dal ñu war nag yaatalaat mu ne kon nag suñu bàyyi xel bu baax nag lu war a toll si ñaar fukki junne doomi adama dineen dal li war a mun a jëfandikoo nag muy lu war a toll si fukki junne hectare pour nar a dugg na si wàllu muy mbéyum maalum lekk ñaareel bi tam dinañ gis ne lépp lu nga xam ne mooy war a mun a indi si wàllu muy bind bu ñu a mun a binde pour xam jaww ji naka la nekk di demee ni mu nekk a mun a yokkee ak lanal la leen fa suñ ko defee dina wàññi nag yàqule buy war a mun a yàqule si wàllu muy am mbéy maalo ni ko war a mun a yokkee ak lu ñoo war a mun a fànqee yàqule yi looloo la fa fekk mu del di àñu ak lu ngeen a xamee si data maanaam nar ko war a mun a dugal si wàllu muy ñi computer te mu ne lii nag def nañ ko dam pour gis ne dinañ jëma seet ñoo war a mun a jëlee lépp li nga xam ne si boppam suñ koy béyee ba pare nat ko war a mun a tënk dinañ ko tënk jëmale ko si ak benn béréb te béréb boobu nak, foofu la gëstu ko di war a mun a di xam lan ak lan mooy war a mun a e tax pour ñu war a mun a e wàllum jëm ko ne bay maalo fii si biir réewi Gambia te mu ne loolu nag ñëw na si waxtoom te nag fas na yéene pour gis ne lépp luy wala mun a ñëw pour doole nag muy wala muy béy maalo te bokk la si muy wala muy engrais muy fertilizer ñu gis ne ni ko war a mun a tegee boor pour jëm a indi lépp lu koy war a mun a nekk di ko yombal ñu ne lii nag gis nañ ne kat gestu gannaaw bu mu dal di amee nag wane nañ lu war a toll si ñaar fukki millions yi nag doomi aadama yu nekk si biir réew yi Afrique yi ñu ngi fas yéene pour nar a dugal nag seen loxo si wàllu muy bay malo te comme ñu ko Gambie di defee yooyu la ko yeneen réew tam nekk di ko defee pour gis na dina jéem a yombal wàllum béy malo ak yokkute bu baax a baax pour askan bi war ko mën a nekk di ko jëriñoo ñu ne góom neen lu war a toll si fanweer ak juróom-ñetti millions yi tonnes moom leen fas pour nar ko war a mën a te nag lii suñ ko war a def si wàllum muy dépasse dina toll si fukki billions yi dollars ak ñaar te lii yëpp dafa nekk si anam bu nga xamee si boppa ne réewi Afrique yi ñoo koy war a mun a béy di ko nar a jox askan bi askan bi tam nar ko war a mun a nekk di ko dundee. loolu moo taxoon ajuma bi ne passé nag ñu signé woon nag ak koppar bu toll si ñetti million juróomi téeméeri junni koppare dollar pour nar ko war a mën a dugal si wàllu mbéyu maalo gannaaw bu lu weesoo ba léegi si xibaar yi fu ñu fas yéene di ànd ak yéen mooy si bunt yi kaaraange ndekte lu ko waral lal gis ne neen ab jamono si gannaaw naka faat bakkan ni bëri woon na lool wàllum bandiya wàllum sàcc ak wàllum lubal koppatam gumoon na ni nag bëri woon na lool si ab jamono si gannaaw ba loo taxoon naka askan wi jëma lam-lami nu ñoo war mun a defee pour gis naka muy jàmm ak taw muy kaaraange dina gën a mën a sax fii si biir tund gi rawatina sax mu nekk si biir réewi Gambia loo taxoon na ba si kare bi si naka muy taskari xibaar QTV ñu waxtaan ak ñu xamee si PRO bu Gambia Police Force moom mooy que muy cadet ESP di Binta Ndiaye Diatta moom nga xam ne que wax na naka gis-gisam ak nu mu bëgg askan wi nat ko war a mun a nekk di ko jikkoo mu ne lu moo njëkk a wax nag mooy njëlbeen yoon bi mooy képp ku nekk doomi réew mi mbaa sa nga nekk fii si biir réewi Gambia war ngaa seet ne war a mun a ñëwee. pour jéem a jëmbat pour jàmm gën a mun a nekk di am mu ne ñaareel bi tam war ngaa war a mun a moytu ko du dox ak ngànnaay si ab mbooloo ndeg loolu mun na moo tax saa yi nga xam si boppam soob na la rek nga daal indi jafe si kanam yi ñi nga xam ne ñoom nga nekk di ko jëflanteel mu ne ñetteel bi tam képp ku nga xamee si boppam nag gis nga lu nga xamee si boppam nag wóorut mbaa sax foog nga ne mun na mooy kiti fitna mbaa mun na moo indi loraange lo wara def moy nga call 117 mu ne nomba bobu nu nek na nomba bu nga xamne soko callé mo xam ndax sa mobile amna sim card mba amu sim card mba amna line soko wolé rek di nga jema am moy police nga waxale li nga xamne mom nga len bëgg wax pu ñu wara mëna ñëw naka fank bala musuba di wara mëna am nak ci bobu gox gohan mu ne ñentel bi baxna pour askan ñu jema xamne naka muy lepp nga xamne ñu ko def rek police ñu ngi koo def si turi réew mi ñu ngi koo def tam si turi askani réew yi Gambie te kon nag warugal la pour nag askan bi jéem a jàppale muy police ñu def seen liggéey comme nu mu war a mën a nekk di demee mu ne nag suñu bàyyi am na bërëb bi nga xam ne askan bi ñoom ñoo fa war a mën dimbale police yi nekk te ñoom ñoo fay nekk benn moo nekk si biir kër yi ñaar moo nekk si hôtel ñetti moom moo nekk di aju si wàllu muy night club yi mbaa mu nekk si baar yi mu ne foofu police yi duñ leen war a mun a dem waan ak askan ñoo fay nekk ñoom ñoo war a mun a lëkkaloo ak police pour nga gis ne lépp lu fa am rek dinañ ko war a mun a saafara balaa jafe-jafe gën a nekk di am te faat bakkan na su boppam gis ne ni dana bëri lool mu ne kon loolu su amee rek mu ngi mel ni comme ñu ngi jàppale police yi ñu ngi jàppale tam baax a baax muy askani réew yi Gambia moom PRO bi di Njaay Jaata mu ne kon nag mu ngi jëm a xamala nit ñi ne képp ku nga xamee si boppam yaa nga dox si mbedd bi yóbbaale ngànnaay yoo nag def nga lu nga xamee si boppam nag mun na moo am sax yow mi yow mu ko indi pour nar a aar sa bopp yaa nga ñëw pour war a mun a teg jafe-jafe keneen ku nga xam ne moo la gis mbaa sax moo la dal jege. mu ne nag yow mi nga xam ne yaa dal di amee na di jëm a dox ak moom nag yow doo defuloo dara de lulut pour war a mun a yokk jafe-jafe mbaa fitna bu nga xamee si boppam de gis nañ ne amaale na si jamono ji nii si gannaaw. moom nag gannaaw mi ko laajtee ba xam ndax moom si boppam nag lan la foog ne suñ ko defee dina war a wàññi moom bu baax muy jafe-jafe am si guddi gi mu ne nag dëgg la nag de ñu bëri nag foog ne ne nag police nag nekku génn guddi waaye police yi ak seen ay yeneen naataangoo yi ñu ngi génn guddi saa su nekk pour a mun a seet ñu mun a aaree askan bi pour gis na ne que muy jafe-jafe mun a ñàkk am si guddi gi wala mu ne nag ñu bëri nag dinañ génn guddi te suñ génne guddi dinañ duñ toppatoo lu ñu war a toppatoo te nag loolu mun na moo indi fitna te gis na ne si boppam ñu bëri nag mun na faa ñàkkee seen bakken lu ko waral mooy ngànnaay yi nga xam ne moom la ñu yóbbu guddi ak moom la ñu nekk di doxaale te kon nag loolu nag mun na ma indi nag looraange si képp ku nga xam ne yaa da def loolu mu ne ñoom police nag su nekkee nag guddi jot na bañ génn pour nar dem nag muy jéem a def seen i liggéey suñu tasee ak nit ki bañ koo daldi ko seet si yaramam bi ñu fekk fa ngànnaay kooko nag si boppam nag dinañ ko yóbbu te suñ ko yóbbee lépp lu luwaa dal di wax si moom ne waru ko def dinañ ko dal di ko gis ne nag loolu luwaa moo dal di si koom te luwaa moo dal di tere ne kenn wartu jël ngànnaay di dugg si biir askan bi moom Njaay Jaata mu ne ko nag na lool pour képp ku nekk doomi réew mi mbaa képp ku nekk fii si biir réew mi nga def sa kem tolluwaay kàttan pour gis ne dinga nga jéem a moytandiku lépp lu war mën a indi fitna gannaaw bu la weesoo ba léegi si xibaar yi Gambia Red Cross Society mu nekk benn mbootaay bu nga xamee ne li tax a jóg mooy dimbale askan bi dimbale doomi aadama su nekkee nag am na jafe-jafe balaa docteur du ñëw wala boog sax su nekkee am na fitna bi nga xam si boppam sonal na ko lool ñu jéem a seet ñu ko war a mun a wàññinde ko balaa loraange di gën a mun a am nag si bopp bi béréb ñoom na ñoo lëkkaloo ak seen yeneen naataangoo pour gis ne di leen jéem a yëkkati ñu gën a xamee si ab yenn muy bagage muy fajokaay ak bagage ñoo war a setale seen bopp jëmale ko si ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqule woon su mbënd mu amoon taw métti bi fii si biir réewi Gambia ñoo nag ànd nañ ak mbootaay bi nga xam ne si United Nations Volunteers mu nekk kuréel bi nga xam ne si boppam seen makkaan mag baa nga nekk bitim réew pour nar ko war a mun a dugal si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ne si bu nekk foofu ne si biir tudde Bakaw bagage yi nga xam ne si boppam moom lañ joxe woon nag moo a xamee si first aid boxes maanaam mu nekk bagage nga xam ne si boppam képp ku nga xam ne am na jëfandikoo si wàlla muy gaañu gaañu moom la jëfandikoo pour nar la koo fajee bala ngaa dem lépitaan mbaa sa balaa docteur di ñëw naka ñaareel bi tam ñu seet ñu war mun a yëkkatee muy lépp lu nga xam ne nag dal na war a ànd ak loolu dal ko war a mun a jox si fukki njoboot ak benn ñu nekk foofu na si boobu béréb si kare bi si nekk mu nekk muy am Ndeene Gueye nekk United Nations volunteer te nag moom si boppam moo leen toogal fii si biir Sénégal ak Gambia moom nag rafetlu na mu baax a baax muy liggéey bu rafet bii nga xam ne Gambia Red Cross Society ñu ngi koo def fii nii si biir réewi Gambia te mu ne nag si nekk doomu aadama am na jafe-jafe lu muy soxla rek mooy kan mooy njëkk a ñëw pour nat ko war a mun a nekk di ko dimbale te mu ne dimbale boobu nag nekku ne nga ñëw da nga jox ko koppar waaye nga dimbale ko si lu nga xam ne moo koy yokk muy wér-gu-yaram mbaa sax su amee wér jafe-jafe wér-gu-yaram nu mu koy war a mun a nekk di ko séntu mu ne kon nag diggante Gambie ak Sénégal nekk rek dëkk mu nga xam ne bëri ñoo ko dale séq te kon nag moom nag am na mbégte lool pour ñëw lëkkaloo ak Gambia Red Cross Society nat ko war a mun a dugal si yi façon yi ndimbal te mu ne gom na ne fukki njaboot ak benn yi naka ñoom kenn ku nekk si ñoom nag dina war a am lu koy war a mën a daldi jëriñ si jamono bi nga xam ne si boppam ne ñu ngi nekk si biir nawet bi te mu ne suñu bàyyi xel li war a toll si téeméer ak juróom fukki junnee doomi adama ñoo leen baaxoo di ñàkk seen bakkan te nag lii nag dafa nekk lu nga xam ne benn lu koy waral dina am gaañu gaañu yi nga xam ne si boppam ne bala ñu àgg si leppataan métit bi moole naa faat wala boog sax su nekkee dem ne ba di war a dem nag lepataan nag ñu am matuwaay yu ñoo war a mun a toppatoo seen bopp te loolu faa tax nag suñ demee ba war a àgg si lepataan fekk nag loolu fu mu daal di àgg sax dina jëfa faj nag ko war a mun a nekk ko wéral te mu ne kon nag am na solo pour nit ñi gis ne dinañ jëm a sàkku ñu war a mun a aaree seen bopp balaa docteur di ñëw mbaa bal ñu war a àgg si lepitaan gannaaw boobu noonu yëkkati nag cadeau cant ak ngërmande ak mbégte nag jëmale ko si ñii nag muy Aïssatou Diouf Aïssatou Diouf moo nekk député disaster management coordinateur bi si Gambia Red Cross Society moom nag gërëm na bu baax a baax muy mbootaay bi muy United Nations Volunteers gannaaw bu ñëw nag wóolu leen ñu dale ànd ak ñoom mu ne kon nag ñoom am nañ mbégte pour gis ne lépp lu war a mun a tax naka muy bennoo ak lekkaloo di war a mun a am si diggante ñoom ak muy ñu nga xam ne ñoo ñoo wóolu leen pour defale mu bii façon dimbal loolu mu ngi mel ni comme nag ñëw na si ñu nga xam ne noonu ko gën a nekk te mu ne gëm na ne naka ñii nii su leen dimbalee ak lu nga xam ne moo leen naa si wàlla muy setal ak tam si wàlla muy wér yaram loolu mu ngi mel ni comme nag doole nga doomi aadama te kon nag fukki njaboot ak benn yi mu ne nag ñoom ñi kenn ku nekk dina war a mun a jëriñoo lii su mu gën a mun a nekk di yombee mu ne ñoom nag si Gambia Red Cross Society ñoom nag yàgg nañu am nag yéene pour dimbale doomi aadama te fekk nañu fu laajtee muy dara lu lulut mu nekk lu nga xam ne mooy war a mun a jëriñee si ñi façon yi ndimbal mu ne nag dëgg la nag muy bagage yi nga xam ne moom la la joxe nekkul bagage dundin waaye dafa nekk bagage nga xam ne si boppam de luy war a dimbale si wala muy dundam la te mu ne nag loolu moo am solo pour nga ko mun a dimbale nit ki si lépp lu nga xam ne de moom la mu war a mun a nekk rek soxla mu ne ñaareel bi nag nga dimbale nit ki nag xamal ko si wàllu muy su jafe-jafe amee ni koy war a mun a bàyyee xel ni mu koy war a mun a gëstoo pour gis ne que loraange war a mun a am nag si njobootam ak ñi nga xam ne ñoo ko gën a nekka di ko jege mu ne kon nag ndegam nag jigéen ñi si boppam ak ndaw yi ñoom ñoo lee gën a sonn si yi mbir te nag jigéen ñi ñoo leen baaxoon di toppatoo muy xale yi ak tamit biir kër gi warugal la pour Gambia Red Cross Society ñu seet ñoo war mun a lépp lu nga xam ne mooy ko mu dimbal nar ko war a mun dugal si jigéen ñi moo xam mu nekk si wàlla mu yokk xam-xam mu nekk si bagage nga xam ne moom lañu gën a nekk di soxla si biir loolu nag muy Aïssatou M Ba nekk gender focal point bi si Gambia Red Cross Society te ne moom moo leen baaxoo di dimbale bu baax ma jigéen ñi ak tam góor yi si boobu far na mu ne nag jigéen ñi nag warugal la pour ñu gis ne que ñoom ñi kenn ku nekk dina war a mën a xam ni moo war a mën a jëfandikoo muy bii bagage te mu ne ñoom su fekkee xam nañ ko rek mu ngi mel ne comme képp ko am jafe-jafe yaram jigéen ñi dina war a mën a toppatoo suñ sa munutee dara nat ko war a mën a nag si lepitaan mu ne kon nag gëm ne que muy bagage yi nii dina dimbale bu baax a baax muy yi façon jigéen te nag mu ne Gambia Red Cross Society bii ne ko njëlbeen yoon ñuy def mu yi mbir waa naka nekk na nga xam ne jukkoo nañ ko nar ko war a mun a dugal si lépp lu nga xam ne mooy war a mun a indi wàllum jëm kanami jàmma Stéphanie Diané béy ko si mbootaay bi di United Nations Volunteers te nag moom moo nekk seen mobilisation officer bi maanaam moo leen baaxoo di gis ne lépp lu nga xam nar na ko defar muy beneen mbootaay muy baaxoo di ko dox mu ne moom nag lu gën a am na mbégte rek mooy gis ne neen ka xale dëgg la ñu ngee jéem a waaj pour dugg si wàllu mooy njàng mi waa nag baax na lool pour ñu war a seet ñu mën a jàngale nag ndaw bi mu xam ni muy war a mun a aaree boppam ak nu muy war a mun a xamee lan moo nekk muy first aid maanaam muy lépp lu nga xam ne moo la dal si wàllum muy jëf-jëfe mbaa si wàllum fitna nooy aaree sa bopp bala nga àgg si léppitaan mbaa sa bala nga àgg si wàllum muy mu ne nag am na yaakaar ne muy lii dina war a dimbale bu baax a baax muy nit ñi si lépp lu nga xam ne mooy nekk aju si buntu wér gu yaram bi Sadio Conte moom loon wax si turi muy ñi nga xam ne ñoom ne daal yëkkate muy bind ba jox leen ko moom gërëm na bu baax muy Gambia Red Cross Society ak United Nations Volunteers mu ne kon nag ñii ñëw ne si waxtu bu nga soxla nañ ko lool te mu ne gis ne que mu nawet si jotee feebaree dafay bëri gaañu gaañu dafay bëri waaye su nekkee ne am nga lu nga xam ne mun nga koo dimbale sa bopp kon mu ngi mel ni comme yow di nga mun a dimbal sa bopp dimbal sam sa yenn jegeñaale ba léegi rek si xibaar yi fu ñu ko daal leen darkeppale dañoo fas yéenewaat continuer ngeen si fànn muy police yi ndekte nag ay fan si gannaaw nag amoon na ab jeexal ab tàggat bu amoon si ajuma bii ni passé ba loo taxoon lu war a toll si téeméer ak fukki am njiit yu nekk di yëngoo si wàllum muy police si tàggat ñu xamal leen lépp lu nga xam ne mooy war a nekk ajo si wàllum muy bandiya ni ñu ko war a mën a nekk di ko xeexee ñoo war a mun a di fere pour gis nag muy wàllum ate pour nag ko war a mun a dugal si képp ku nga xam ne yëkkatikati fitna la yëkkati fa yëkkatikati mooy tuxi duna la wala boog sax def kati musiba la ñu nar laa jàppale yóbbu la si néegi atteekaay yi pour nga gis ne naka dina war a mun a jaar si lépp lu nga xam ne moom la lu waa nekk di wone moo tax ñoom ñu amoon mu juróomi fan tàggat pour nag ko war a mun a dugal suñu xamee si criminal justice executive course si Karabes si naka woote woon ne ñu nekk di liggéey si Gambia Immigration Department Drug Law Enforcement Agency Gambia Prison Services gambe Fire Service ak tam muy State Intelligence muy SIS pour gis naka ñoom ñi dina war a mun a toog waxtaan naka am tàggat bi nga xam si boppam moom mi war a mun a lëkkaloo si lépp lu nekk aju si wàlla muy kaaraange rawatina sax mu nekk aju si façon fànna si kare bés fi nag ku loon wax si turi muy inspecteur general of police kii moo nekk Ibrahima Ba Ibrahima Ba mii nag moo nekk assistant inspecteur general of police bu réewi Gambia moom nag gërëm na bu baax a baax si turi mi muy Kofi Annan International Peacekeeping Training Center bu nga xam ne ñoo ne pour yëkkati bii façon tàggat te ne lii nag ñoo ne pour dimbale nag muy ndaw yi nga xam ne ñoo nekk si seen i ron pour ñu war am xam-xam bu am solo xam seen liggéey ni ñu ko war a mun a nekk di ko defee si yoon mu ne kon nag refal leen baax a baax mu tàggat bi te ne mu ne gëm juróomi fan yi nii dina amal njëriñ bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk muy police yi immigration fire service prisons ak ñu nga xam ne si boppam de ñoo nekk liggéey si wàllu muy kaaraange te mu ne na lii su dee bi nga xam ne que xam-xam dem ne bi am ko dina am muy beneen dayoo bu mu war a yóbbu muy bunte kaaraange rawatina sax pour jëm a yokkal xam-xam si ñu nga xam ne ñoo toll si téeméer juróom-benn fukki doomi aadama gannaaw loolu weesu rek muy ACP Ousmane Abdoul Rasek mu nekk cost directeur bi te moom bokk na si ñi nga xam ne ñu doon tàgg mu ñii si boppam si kër bés bi nii mu ne gëm na ne lépp lu ñëw lu war mun a yokk muy bu ñu war a xam ñi nga xam ne si boppam ñoo nekk yëngoo si wàllum muy kaaraange gi warugal la moo doon te kon nag mu ne nag daanaka nag si waxtoom leen daal di toll ndeg ñu si jamono démocratie nag baax na pour doomi adama rawatina sa soo nekk di yëngu si wàllum muy bunti kaaraange nga xam ne jëmbalante ak askan bi ak ñu nga xam ne si boppam ne moom nga war mun a ko moytu ndeku te mu ne gom ne ko muy tàggat bi ni am na solo lool te juróomi fan ne ko am na wécciku wécciku bu nga xam ne si boppam ñoom it def na ko si diggante ñoom ak ñi nga xam ne ñoom leen nekkoon di tàggat te kon mu mun a na ne lii dina war a yaatal bu baax a baax lépp lu nga xam ne moom la nekk di deme mu ne kon nag mu ngi jëfandikoo nag muy biit waxtu na pour jéem a na muy ndaw yi nii toll si téeméer a juróom benn fukki police immigration fire service prisons ak drug law enforcement agency ak state intelligence services ne ñoom ñoom leen def seen kéem tolluwaay kattan bu gis ne nen matale yaakaar bu nga xam ne moo tax ñu tànn leen pour dugal leen si biir façon tàggat mu ne réewi Gambie nag nekk na réew bi nga xam ne préparé pour jéem a am nekk suppale ko bu ñëw suppale ko pour gis ne lépp lu nga xam ne bu njëkk ñu ngi koo jéem a lam-lamee di ko jéem a ñawlu si wàllu muy kaadaange gi ñu gis ne naka dañ ko war a mun a récupérer waat jaarale ko si yoon te fekk dafa ànd si fànn muy loi cadette ASP di Aminata Sylla nekk cos participant maanaam bokkoon na si ñi nga xam ne ñoom lañ woon pour ñu waroon a nekk di leen tàggat moom mi moom lañ cërale woon pour mu war a mun a joxe muy kàddu cant ak ngir mbaa di ay moromam mu ne moom nag am na mbégte bu baax a baax gannaaw mu nga xam ne bokk na si téeméer ak juróom-benn fukki nit nga xam ne ñoom leen tànn pour tàggat leen si biir façon ngi fan yi nii te mu ne kon nag gëm na ne lii ñëw na pour yokk na seen wàllum liggéey naka fu mu emoon yokk ko si beneen dayoo te mu war a mun a ànd ak wàllum muy jëm kanam te kon nag mu ne mu ngi mel ne comme police soo ko war a ñëw pour jàngal ko rek loo ko war a jàngal mooy nu mu defee liggéeyam waaye nekku dara ñu ne kon nag tàggat bi nag nekk na tàggat bi nga ñu ko dalee dépasse mu nekk German Foreign Ministry bi ànd si ak Kofi Annan International Peacekeeping Training Center bi bu nga xam ne moo ko si bitim réew ñu woon na def ko fii si biir Gambia te tagal bi nag ñëw na pour war a mun a am nag ponk yi nga xam ne moom la mu war a mun a ñëw pour jëm koo nekk di ko safara benn bi mooy lu gën a xamee si criminal justice honesty maanaam lépp lu nga xam ne si boppam mooy tax ba lépp war a def si wàlla muy kaaraange fekk mu nekk di aju si wàlla muy bandiya mbaa yeneen fas fan fànn nga jaaral ko si wàlla muy sa diggante ak yàlla ak lu nga xam ne moom na lu war a dal di santaane rax sa doole itam ñu seet ñoo war a mun a dimbale muy képp ku nga xam ne sa liggéey mu nekk aju si wàlla muy gestu ñooy a mën a nekk di gestoo yi façon mbir si wàlla muy bandiya ñooy war a mën a gestoo muy rawatina sa nga bàyyi xel si lu ngeen xam si juvenile système maanaam ñi nga xam ne am wuñ fukki at ak juróom-ñett dem si kaw pour nga gis ne ñoom ñi dinañ war a mën a seet naka ñu leen luwaa di leen gisee ak ni leen war a mun a nekk di leen jàppee ak di leen mun a nekk di leen attee rax si tam li nga xam ne si terrorisme and counter terrorisme maanaam lépp lu nga xam ne si boppam foog ne doomi aadama dina ko jikkoo moo xam ndax pour yëkkati fitna mbaa sax pour jéem a yëkkati yeeyoo pour nar ko war a mun a indi fii si biir réew mi ñu war a mun a am boobu xàmm ñu war a am boobu xam-xam rawatina suñu ngeen xamee si policing ethics maanaam lépp lu nga xam ne moo nekk aju si wàllam muy sàtt bu police di war a mën a nana def liggéeyam pour mu war a mën a nekk di jaaro ñu ne na ponk yi ni mooy ponk yi nga xam ne moom ñu jàngaloon nag ñii si diggante muy juróomi fan kon askan mi li moo nekk lu leen amaloon si xibaar yi di leen jaajëfal lu baax a baax si seetaan bi ak ñi nga xam ne yéen a ko doon déglu si kiw radio muy téeméer ak ñett tomb ñetti fii si biir Kairaba Avenue ba incha allahu rabi ëllëg ab jàmm nekk talaata ñu tënkal leen yeneen xibaar ngeen andoon si ak Biram S Diop jërë ngeen jëf.